duñ ko tab waye nak dafa fekk jamono jojé ñu gëtam ko dakh assemblée nationale di ko woolu di riitambale dal xelu sénégalais yi lii la sénégalais yi mer fal président Macky Sall waye yow Amadou tey mer gin meral président Macky Sall yow nga uufu ba tay ci képaram lan moy sa lay sa digg ak sénégalais yi Al Hassan Sall nan kon fukki at ak ñaar a ngi nii nga and ak président Macky Sall fukki at ak ñaar yo xamné nga yor nguur gi te lér na la nañ digënté président Macky Sall ak sénégalais yi neexul nga fekk sénégalais yo xamné dañ leen mer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 départ googee mal gouvernance farankulaay ca ay détournement de deniers farankulaay ca def lu ne weng te dara du la ca fekk laay fa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 gouvernement gi ay